xabaar yi la leen di baaxee tey saltine gi yem ak ñaar fukki fan ci weer wi ma di leen dalal jàmm daañu leen faram-fàcceel ci digg xibaar yi kàddu ya Serigne Moustapha Sy yëkkati jëmale ci nguurug Macky Sall geek kujje gi geneen ndajem dox ñaxtu ga kuréelu Wi dëg ma laata gannaaw ba woon aljuma ji weesu te yoon tere woon leen ko daañu ci ñëw ak yéen mbirum gune ga ñu sàcc ca Pikine daañu ci dikk ak xibaar yi ci waa këram jottoo joxe accident gu métti loolu moo am tey ci fajar gi ba ay bakkan rot si tàggat yaram ma di ca toftandi ni ñu ko defee saa rek mbokk yi ngeen taaxirlu as lëf bàkk bëj yëpp ma daal di leen koy yaatalal ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xibaar yi ña ngay woye waxtaanee la tegoon loxo député wu kujje gi di Déthié Fall ak Mame Diarra Fam ci manifestation non autorisée ga kuréelu Yewwi Askan Wi woote woon parti républicain pour le progrès di biroolu plainte ci ndoddi procureur de la république Amady Diouf nee nañu nag dafa jalgati immunité parlementaire wu Déthié Fall wi nee na maître des ba euh, ci intérêt politique lay xool te waruñoo foowee immunité parlementaire euh, ci noonee dañuy doxal article bu code pénal itam ci rek di euh, Mame Diarra Fam ak ñeneen ñu jàppoon yépp defere nañu leen parquet ba ku ne ngi àddu rek ca la xew Pikine jeeju mi ñu fësalul turam moo di ndaw ga ñàkk bakkanam rek di beex gi weesu ca arène nationale nga doon amee lamb làmb ja doon dox diggante Franc ak sox saytu yu njëkk ya yemewul ak mbirum grenade lacrymogène bu nu sukkandikoo ci libération amul benn waxtu bu police sànne ay lacrymogène jeeju mi ngi toll rek ci ñaar fukki a ak ñett journal bi wax ni ci biir stade ba la lakkee asphyxie toftandi ca gannaaw rek ba ñu sànnee pétard ci kanam gi ba ñu doon ko évacuer la génnaat dina ba tey libération di wax ni rek takk der yi ko doon wallu ñoo dencoon xibaar wi doon bañ rek xeex dox diggante ñaari gu ah, jëlee ay gaañu gaañu yu metti ci sànni pétard sapeur pompier ñoo ko doon taxaw ah, bu nu sukkandikoo ci le soleil takk der yi teg nañu loxo juróom-benn nit alxamis gi weesu nee nañu nag dañu doon waajal trouble grave ak complot ci manifestation kuréelu Yewwi Askan Wi dañu doon amal ci aljuma ja ah, bokk na ci ñooñee sekk mii di responsable massification bu benn kuréelu kujje ak ñaa gëstu ya ca police amaland ci ak ndombol tànk nguur gi di xam leen rek moom sekk dafa xoon benn menuisier métallique mu defaral ko ay herse yu ñuy rek teg yoon wi ngir baare police ñu bañ a jàll ku ñu naan monsieur Guèye moom itam da doon commandé rek ay bouteilles yu essence ngir song entreprise française yi yu mel ne Auchan ak station Total yi ci noonu la leen brigade de lutte contre la cybercriminalité localisée jàpp leen soudeur bi di ñaan ak ñoo ngi ko jàppee ci atelier am foofee ca parking bu stade Léopold Sédar Senghor fekk fa ay erreurs yu bari yu mu defar ba noppi ba ñu ko laajee ci la yoolee sekk ci bés googu la nag la ñu ko jàpp moom sekk di ab agent wu employé domaine sowo bésu manifestation gi ci suba gi euh, la ñu teg loxo F Makambu mi ñu gën a xam rek ci vieux gradé fekk ci moom feteelu calibre 22 long rifle avec des mutations euh, Guèye ña ngi ko jàppee Rufisque ci benn woto la newoon rek am rendez-vous ak ñeneen euh, ci rek la ñu waajaloon teg nañu loxo itam ñetti nit ba ñu leen dégloo nangu nañu la ñu naroon def Aïda Diagne ci at ak genn wàll dong la toll réeraay mbokkam ci suba ak léegi ay waajuram di wax ni rek nit a ko fa jëlee booba yaayam a ngi togg ah, kooku gis nag moo leen wax na ndaw sa mel ci lu ñu demee xool caméra de surveillance su seen ay dëkkandoo daal am firnde ni ab soxna moo ko jël dem ak moom loolee nag njàkkaxe la juux ci waa kër ga rawatina ay waajuram élément yu division des investigations criminelles ña ngay enquête ci ab mbirum association de malfaiteurs escroquerie faux ak usage ci 836 millions ah, ci kaw këri banque bu nu sukkandikoo directeur général du Bamako international bi di Soumaro Karamba ma nga am li ñu ko 836 millions ci njëndub 4000 tonnes a mu di koppar gu àgg rek ba ci compte complice am bi di Hawa Sile Ndiaye may directrice générale du IC investissement fournisseur ba Christophe Cheban Choumel nekk Casablanca di directeur Mon Electro jot na virement ba noppi daal di seey kenn gisatu ko gannaaw loolu nag Soumaro Karamba daal di dem dikk ne victime la ci mbir mi ci noonu la journal bi wéyal naan dikk dafay saisir Interpol ngir jàpp rek kii di Christophe ay bés si ginnaaw la génnoon mouvance présidentielle Adama Fall del sina APR ci ab vidéo gu réseaux sociaux yi wax na ni nag kenn joxu ko lenn giseewul ak njiitu réew mi giseewul itam ak benn ministre askan wa nekk Medina ñoo ni ko rek na dellu ginnaaw ci ndogal la mu njëkkoon a jël te bañu ko ñaanee mënul def rek lu dul nangu nee na am na ay journaliste sax yu ni ko bu mu génn muy wéyal naan APR këram la te moo ko moom njiital Moustarchidine yi léegi di Serigne Moustapha Sy yëkkati na ay kàddu jëmale ci njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram l'observateur di xam leen rek kilifa gaa nga biral kàddu ya ci xew-xewu sargal gañu ko jagleeloon gaaw gi weesu dooleel na leaderu Yewwi Askan wii di wax ni rek xeex bi Yewwi Askan Wi di xeex bu anto askan wi lay dimbali loolu war a lekk mu leen di dooleel rawatina Ousmane Sonko Barthélémy Dias Ahmed Aïdara Déthié Fall ak kii di Khalifa Sall nee na nag Barthélémy dafa war a dëgër fi mu ne nii ndax ñu ngi di ko dunduloo lu ñu doon dunduloo Khalifa Sall Euh, Serigne Moustapha di wéyal naan bu leen bàyyi ba atum 2024 bu leen xeeb itam lenn lu bawoo ci nguur gi euh, bu waxtu wi jotee moom dana def la muy def ci manière am way leen di xeex maa ngi seen wet euh, teg si neena moo yor seen i xarfa bu leen ragal dara liggéey leen ma yor li si des nañu xam ne nag defagul dara nguur gi danañu xam rek moom mooy kan législative moo di rek njëlbeen lekk njeexantalu nguuruk Macky Sall si dox ñaxtu yoon tere nag Serigne Moustapha Sy nee na bu beneen yoonee dafay génn kuréelu yeewi askan askan week wàllu dañu fas yéene amalaat geneen ndaje ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi gannaaw ba ñu amuloon aljuma ji weesu njiital kuréelu Pastef gi moo ko xamle Ousmane Sonko nee na nag bi la yoon da ciy sóobu bu baax a baax ñaar doo nga mën a am way laa Macky Sall jàpp ko way rek mu faat ko nee na altine la ñuy déposé lettre d'information bi te si beneen anam la ñuy amalee manifestation gi ci gox yépp na woon rek ca sigi coox ba ñu ko defee ñaari fan manes nañu sax daaneel nguurug Macky Sall gi teg na ci ndoddam nag bépp responsabilité njëlbeeni nawet gi dafa metti loola ca commune Bamba Thialène gën kaa jege rek ca village Mbuub ci département wu Koumpentoum benn euh, baykat la fa rek dënn gi faat gannaaw taw gu métti gu fa amoon fas fas wa mu waroon itam da ca des askan wa fa yeewoon ak di ko métti lu tey ñaxtu lii di ay paratonnerre ngir mucc ca ndax nee nañu rek at mu jotalu ni mel daf fay am accident gu metti lool moo am di beexu démb gi ca Koumpentoum ma gën kaa jege ca commune u Bamba Thialène ma nga am ay boori 13h laata baax gi ñaari woto ñoo fa daje ñaari nit ñàkk nañu ci seen bakkan sa sapeur pompier ak gendarme yi demoon nañu rek ca bërëb ya kawteef ga ame ba amal fab saytu dox di évacuer euh, néew yaaka ña sa jële ay gaañu gaañu ubbi nañu ci planquette ngir xam anam ya accident gi amee gannaaw ba ko faram wi ëmbalee ba noppi xewoon ko ginnaaw gune gii di jóopa ci fukki at ak da doon jéem a sàcc ngir fay frais médicaux wam Euh, bu nu sukkandikoo ci libération la mu gën a rëccu moo di la mu sekk ak waa jile ba ñu ko taxawalee ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru dafa njëkk a weddi tuuma ya laata muy nangu tribunal teg na ci ndoddam benn weer gu mu dul tëdd gannaaw génn àddina Abdoulaye Diatta ci manifestation ga kuréelu Yewwi Askan Wi doon amal bésu fukki fan ak juróom-ñaar meeru commune bu Bignona biral na Bakary Diatta nee municipalité gi dafa jël ndogalu waaye daal bu weesoo boobu l'enquête ñoom dañooñu ubbi geneen ngir xam rek ci yan anam la ñu fàtte Abdoulaye Diatta ah, ñu ngi woon ak ñëpp ngir ñu taxaw si ah, góor gi lee di faal ak soxnaam si di aawooma seen coow ma nga mujjee ji rek ca tribunalu Louga ndaw sa nag moo yóbbu borom këram ci yoon mu teg ko loxo ñu teg ko loxo yóbbu ko kaso l'observateur di xam ne ni ndaw saak wu jëmbaroon xeex na aawo bi daal di koy dóor dóor bu métti ci kanam gi ah, mu daanu góor gi faal nag fayul ñaareelam bi bi ci kanam ay incapacité temporaire de 15 jours daal di jébbal ca brigade de gendarmerie bu gox ba ba takk der yi laajee mu nangu tuuma yooyu tege ci ndoddam yépp tey ñaan ñu àtte ko ci yërmande gannaaw garde à vue dañu ko defeere ba noppi placé ko foofu ca arrêt double S gu nekk ñaari at moo doon rek foo ci butigu tantam bay jaay cosmétique ba yegg rek ci fiilu courant gi loolee moo commencé mu génn àddina Les Échos di xam ne ni rek ñëw bi ca l'hôpital ga Aliou Badara Fall ab sénégalais la bu am juróom fukki at fanweeri fan ci weeru octobre atum 2009 ba nga ni nag la ñu ko tëj fu fee ca Gabon doon ko toppee incendie volontaire fukki at ak ñeent daanaka muy xaar rek ñu jël ndogal ci moom moom la nag dafa feebar ba sonn ay semaine a ngi nii mu nekk rek isolement ONG bi wax ni rek benn pajkat ca kaso ba moo ko saytu defal ko ordonnance ak examen gu mu war a gisee rek benn stomatologue boobu ba tey nag mënul jënd ay garabam ndax amul njëgam te itam amul ku ko jàppale. geneen accident gu metti lool moo am tey ci fajar gi ca yenn foofe ca diwaanu Mbuur ñeenti nit ñàkk nañu ci seen bakkan ñett ña di ay soxna benn set place moo fa dajeeg benn camion mu metti lool yeneen woto ñëw dal seen kaw dañu leen toppalaat bépp xabaar bu ci bawowaat wàdd mi ñu fësalul turam ab apprenti chauffeur la dafa sànni xeer nag ci ndongu benn passager bu doon door a wàcc ci woto bi ñetti fan ci weer wi la ko placé woon su mandat de dépôt alxamis gi weesu la ñu ko taxawal ca baaru tribunal des flagrants délits bu ndakaaru ñeel coups et blessures bu toftal incapacité temporaire de travail ñaar fukki fan ak benn partie civile ba di wax ni premier juin ci weer wi dafa dugg ci woto bi moom ak yeneen di laaj rek seen weccet di wàdd waaye nag ba mu laajee wecc itam wàdd bañ chauffeur ba daal dugg ba mu wàccee nag Patte d'Oie ci la ne Wade dafa réew moo noonu rek la ko dal di sànnee xeer ba tàggat yaram nañu koy ndar keppee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi Henri Camara bég na ci li Sadio Mané war a jógee Liverpool ndax nee na amatul lu mu fa war a wane nee na nag defal na lépp Liverpool jàppale na leen ba ñu am ndam ci championnat amatul lu mu leen amatul lu mu di fa def dafa jot rek ngir mu dem seeti leneen Henri Camara di wéyal naan dana kawe loola fa mu jëm dana jouer Bayern yàgg yegg fu sori loola ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet gii di ñëw confédération africaine bu football dana décerner titre ballon d'or africain 2022 bi gannaaw ba mu jëlee coupe d'Afrique des nations weeru février gi weesu euh, defit saison bu rëy ca Liverpool Sadio Mané la ñu def favori ngir jël trophée bi laaj ba moo di ndax ban position rek la ci Mohamed Salah di toogee égyptien bi nag moo di meilleur buteur meilleur passeur di it meilleur joueur euh, Premier League euh, ci classement wu Afrique bi nag Sadio Mané moo jiitu Liverpool bi Ah, na mu ko diggee woon la ko defee di ber gi weesu ci arène national Franc bu jàmbar ak demee dal dinay rek duma sox bu xam xam sa cosaan ah, lamb jo deful sax ay simili doomi Parcelles Assainies bi daal di yóbbu suuf nawleem gi ah, gannaaw rek ba ñu songoowee lu ni mel nag di fi ne taxawaayu mbër mu ndaw mi ci lamb ji bi le nag moo di fukkee li ndamam ak ñaax kenn daanagu ko mbokk yi li la ñu nangi loon tey ci xabaar fii ci Dakar Buzz daañu leen ko toppalaa lu ci gën a fës ba ëllëg allah